weer ñaari weer ñaari at yi koor gi am yëpp te amul festival nit ñi dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy xaw a wéet moo tax ren euh, bi ne yëpp bàyyi nañ ko ñu def festival bi dañuy delloowaat nit ñi ci li nga xam ne mooy seen yëf parce que festival bi bokk na ci li nga xam ni réew mi askan wi moo ko moom ba bu amul ñu jàmbat ko kon bu nu demee toog ñaari at ñëwul ba tey ji mu ñëw day nekk bànneex ci euh, def def def ko mais benen bi ci dess aussi fatli nit ñi ni seen yëf la parce que liñ ci bëgg way kat yi am ci cër buñ ci am am ci promotion bo xamni ni ak li ñu daan def ci biir jang yi fekk fexé ba njàngale mak ñi ci bind yi ci way yi ñu fexé ba ba ñëpp xam ko ndax bu way bu way kat bu nek ci sa daayira nga daan bok wala ci sa koñ nga daan nek di way donc buñ leen bolé jaxaso bobok lekkelo bobu bokk na ci li am solo ci li nga xam day dundal diine ba pare euh, rataxal diggante yi nga xam ni moo am seen ñoom ci seen diggante. nañ di ci gis ay innovation à chaque fois ren lan lañ mën a xaar. bon innovation bu fekkee ni dañuy def innovation bu njëkk euh, liñ daan dem ci banlieue bi bariwul banlieue bi bariwul xam nga léegi bu nee wax bu nee Kër Massar léegi ñëpp xam na ni département la te gox la boo xam ni la fa nekk macha allah ci ay nit.

dem Kaolack waa Gàmbi ñëw ñu ni léegi comme dem nañ Kaolack euh, te bala ñuy àgg dem Kaffrine nag ay Tamba nan dem axe noor bi mooy Louga bu ñu jógee Louga incha allah bu déwénee ñu jëm Ndar noonu la ñuy def ba festival bi dellu ci biir réew mi ndax foo ci nekk rek am na fa tàggat su yonent boo xam ni am na fa këru diine gu fa nekk koo xam ni fësal ko dafay nekk ci suñu priorité dafay nekk suñu warugar ci ñu def loolu loolu moo tax tey ñu ni daal. non décentraliser festival bi ci. Euh, Papa Thierno ñu ngi lay nuyu. Ah, ma ngi leen di fay ma ngi trop festival salambi bi ren delu sem lan la lay def. rabbil alamin ñu ko dem jitu am ñu ko mënu ñoo juk am ñu sant yàlla kott dong moo la ci war ndax yàlla moom ña dem ñàkk fayda yóbbuwu leen ñi tëdd ñàkk fayda taxul ñu tëdd waaye yàlla moo la boolewul ci lim yooyee boole la ci lim yi xam ne dangeen wara war fekke ko taxawu ko te taxawee ko te taxaw ci kon sant yàlla rek alhamdulilah daa kulli at ñoo ngi ñaan yàlla mu ni muy wëree àddina ci image ñoo ngi ñaan yàlla mu wër àddina ci teewaay ñun ñëpp ñuy teew di ko fekke ndax ki ko sas sanc ko barke la ci bëgg te maam Sidi Aj Malik wax na ni radiyallahu taala anhu sanc boo bëgg barke fekk la fa xaar fa lënd yi Yuusuma jigéen nag moo sanc lii ba pare di ci xaar lënd yi du alalu kenn bu ci dem du lenn kenn moo ko xalaatal boppam xalaat ni moom ci li mu nekk baax na waaye li gën a baax mooy ñoom ñii woykatu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ci li ñu nekk mu ni leen yéen ci yéen laa bokk ndax yéen a nekk ci li gën li baax te ku soxor mënul wax loolu ku sa xel wayul mënoo wax loolu dof du gërëm dof du sant du wax bu waxee lu baax mopp bu noppee ñu ni noppi gi dafa yées kon yàlla na yàlla jàppale ko te ñi fii ñëw ñëpp ku ci nekk boo ñëwee teew bay dem ñoom ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ku ci ne mu yëkkati galagu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boole ko contrat jox la ko ngir boo demee ak ñi nga àndal ñu man cee ñam boo demee ci kër ga ña nga fa bàyyi man cee ñam te woykatu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa boo ko joxee galagu nabi wàcc na moo ko yelloo moo ko moom kenn saraxu leen galagu Seydina Muhammad lañ leen di jox ñu shérif yi moomee àddiya woykatu rasulilaay ñoo moom galag moom lañ leen di jox te galagu nabi lu ne def ci ne takk na soxna ngénte na faj na ku tëdd dëj na te na beytaan yi ñu koy way mu nangu ñun ko lu waral li mu ni bëgg ñëpp xam ni ñii ñoo taa ñoo taamoo ki gën ki baax ki tax ñu bind ñëpp kon moom Ndour dañ koy ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam dolli wéram dolli jàmmam moom ñu ko jàppale ñëpp di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa war a may maam Cheikhna Cheikh Saadu Abihi de décentralisation mi ngay wax tontu naa la ci léegi ñoo ngi dem ci banlieue bi Kër Massar Mbaaw Grand Yoff dem Louga séntu woon Ndar te ba léegi weesul de Ndar gi weesul de tey bu ñu ñëwoon suba suba suba suba xam naa Mara mi mu teg yëf fii ci loxoom xam naa Abdoul Aziz mi coordinateur bi. su ñoon tey ci ñoom ni kilifay ndar yi booloo nañu bennoo ni dañu bëgg ngeen ñoo altine altine bu altine nga gis ñu fekki leen ndar ndox luy béggal askanam rek lay wut lu ñor askanam lay wut lu askanam bëgg rek lay wut te muhabba bi mu am ci sayduna muhammad sallallahu alayhi waaye na ko te nabi moo ni ku ma way ñuy dëkk maa ngi yow ci àjjana ku ma sopp ñooy dëkk ku ma bëgg ñooy dëkk ku ma tudde doom mucc nga rëcc nga te du waxe ba kenam lu mu wax yàllaa ko ko waxloo te diggante mag sunu borom jibril la ci yàlla awale woon génn guddi rek la jibril dem ba mënul te dem mun ko fii la ma yàlla wax fii laay yem ni ma toogeeg yow lan la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Muhammad sunu waa ju baax ji nii ma toogeeg yow nii la toogeeg yàlla yàllaa ko ni doxal si tapis rouge bi ñëw maa lay accueillir lu ma defalul kenn maa la koy defal maa lay accueilliral sama bopp ñi kàddu yàlla lañ dégg rek xëm moom mu toog yàlla di wax ak moom muy tontante yàlla yàlla ni ko maa wax ni maa wax lii tontoo ma lii muy ñëw mu jox ko yóbbal bu mat bu mat yóbbal tey bu ñu amee lu mel nii ci réew mi ñëpp dañ ci war a jàpp sponsor yi dañ war a génn sponsorisé wu ñu groupe Futurs Médias sponsorisé wu ñu Youssou Ndour ki ñu sponsorisé mooy kan Seydouna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ndax moom moom moom lii moom lañ ko jagleel ñëpp war nañ cee dugg muy jullit ba muy chrétien bi muy payen bi muy ñëpp ndax ku ñu bind moo tax mu yiw wu rëy di nga neel wu yaatu moom yuusu mu indil ñu ko yéene ñu ko yéene ko réew mi yéene ko askanu réew mi yéene ko àddina bi moo koo koy parrainé mu ni président de la république son excellence Macky Sall kan mu ne le roi Mohamed V wàcc na lu mu gis bitim réew jëli ko bitim réew indi ko ci réew mi innovel ko boppam ñu initiateur bi ko xam xolam xam ni mu mel xam ni bu sañoon addina bi yëpp danoon ko war fu ne ñu ci fa def ko fa mébétam loolu la yàlla ko ko yàlla may mu eggale ko ci sagoom te tal ko te fekk ko ñun ñëpp ñu ànd ci bi hurmati rasul sallallahu alayhi wa sallam di baalu àq réew mi yëpp ak askanu réew mi yëpp ku njorti ne rek tooñ naa la nag ma baal àq man nag yéen kenn tooñu ma man maay tooñkat bu mag bi maa leen di tooñ maa ngi leen di jéggalu baal leen ma àq te xam ne man baal naa leen maa ngi ñaan yàlla mu boole ñu baal weer wii di weer weeru xam ni yàlla da ciy lakk bàkkaar yi yal na lakk bàkkaar yu jullit yëpp def ko tiyaaba ak yow te bañatuñu ko topp bu ñu tay bu ñu tayul kon ki am lii yéene la lii waaye waay waay dëgg dëgg papa ah baax na de baax na de ku baax la de weer wi yàlla ni maa koy fayal sama bopp sama weera maa koy fay maa leen koy fayalale sama bopp xalif généraux yëpp nekk ci réew mi ñu jox leen seeni i cër jox leen seeni i wàccuwaay xam ne ñoom ñoo toogal sunu maam yi taaloon gëlenti diine ci réew mi ñoo ngi leen di jox li ñu moom ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di sargal ñoo ngi leen di màggal kilifa aada yi ñoo ngi leen di màggal ñoo ngi di sargal ñoo ngi leen jox li ñu moom kilifa àddina yi noonu askanu réew mi ñoo ngi leen di jox li moom ci ñun tey ñaan sunu borom jox leen ñoom it moom تشينون بجاي رسول صلى الله عليه وسلم دنيا نشي حيا خليفة رسول الله في الأرض خليفة جنرال عبد الخادر ديغنتي ماك شيخنا الشيخ سعد بو مامم شيخ طالب وي جورم رك تياو مو اف لول سد لول باري نجارني لول نك تي سونو كيرغي تي ني في نيو نيان نون في ngir barke wasaaru fi ci la bokk kon yal na yàlla ru sëñu leen bi jaay rasul sallallahu alayhi wa yàlla jëgal ñëpp yal yàlla màggal ñëpp yàlla baax ñëpp ñu doon ay ñoñam mu suturaal ñu dunyaa wal aaxir nangu ñu sunu xiif nangul ñu sunu mar nangul ñu sunu koor bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa yàlla bu mu doon sunu mujj gi te ragal naa bii yi fi jaar yëpp neex na de waaye lool bi bii lay doon incha allah jërë jëf. maa ngi laa fay bu baax sama doom di nuyu waa IGFM yëpp di nuyu tamit directeur ya ak sous directeur yëpp maa ngi leen di ndokkeel ñoom nag samay xarit lañu dañu yàgg. taxawaay bi ngay am bu chaque fois bu festival salaam ñëwee ren ñu gis ne toog na ñaari at amul mu dellu si waat ren lan la lay def yow. waaw ma am ci rek euh, mbégte ku ne xam ne ne ñaari at yi nu génn dañu jóge ci loo xam ne lii mooy mbas te ci réew su am ci réew activité yu bari yenn yi dañ koy bàyyi yenn yi ñu wàññi ko rawatina foo xam ne fi mbooloo daf fay daje loolu moom moo tax ñaari at yi bai, har allah ñu def stand by xaar ba mi macha allah yàlla jële ko fi pour ñu mën continuer activité waaye li nga xam ne nii euh, mooy festival yaa salaam dafa bokk dafa bokk ci dundunu doomu aadama yi initiative bi am solo parce que dafa am touche boo xam ni dañoo bokk ci réew mi ba pare nekk ñoo xam ne ñi dañuy gëstu te gëstu xel a koy def ñooñu nag moom la président yi sunu wax ni nañ leen fexe ñu leen jàppale ba ñu mën a fës ñoom tamit xam ne tamit dëgg-dëgg ci société bi ñu bokk ñu am touche boo xam ne dañ ko ci dañ ko ciy wane mu nekk loo xam ne lii dafay nekk seen njariñ ñoom ba pare nekkaat njariñu population bi loolu moo tax dëgg-dëgg festival ya salaam am solo ñu estaan bàyyi woon nag ci deux ans yi mais incha allahu taala ñi ñi ngi nii di ko tàmbaliwaat. ku gis salle bi xam ne nit ñi tey namoon nañ festival salaam mais ñu gis ne tamit organisation bi dañoo def ay indi ay coppite maanaam innovation boobu ñu waral ngeen war a dem ay Kër Massar ci banlieue bi dem tamit ci yeneen région comme Louga lu waral initiative yooyu. xam nga Dakar. rek euh, macha allah mooy capital bi mais dañu am ay gox-goxaat am ay quartier am ay région te lépp looy def lépp nga bëgg a consacré ci capital bi ñeneen ñi duñ ci gis seen bopp te festival Ya Salam dafa nekk loo xam ne région bi dañ ci war a gis seen bopp même sous région bi sax dañ ci war gis seen bopp comme ni tamit ni nga xamee ni nii noonu la ko noonu la ko bitim réew war a moom gisee seen bopp looloo tax léeg-léeg ñu def ko en direct pour ñoo ñëpp mën ko dund mais fépp foo xam ne fii tànk mënu fa dem looloo tax ñu initier loolu mais fépp foo xam ne fii seet nañu ba xam ne tànk mën na fa dem moyen dina mate pour ñu dem fa incha allah bu ñu sañoon ci région yëpp lañ koy def looloo tax daal boobu boobule dafa nekk loo xam ne lii kenn la tamit ci festival yi asalaam. tënku boobu nag ci la tënku wax ne festival defe nañ ne daal dëgg-dëgg ci lay raw parce que ci nekk yaa ngi ñëw sa xalaat yu bees ndax deux ans yi nga toog yëpp li nga bindoon teg ko jóor yooyu yëpp bu ci tënkoo loolu tam mën naa indi loo xam ne lii lu bees lay doon loo xam ne ñëpp dañ ci mën a jariñ waaw ndokkeel nag ñëpp réew yëpp ñaanal nag président Youssou Ndour bu baax a moom initiative bi initiative am sama maam ñoom du mbay gar mi boo dee tànq ci ndaal yi joxe war ngaa bàyyi xel ci gaste bi kenn gasu ko moom moo ko gas ñëpp di naan ba pare nag mu yëwén ci it na jox ñu ci poste de responsabilité yu am solo yoo xam ne yile su festival bi ñëwee amuñu xalaat ci leneen amuñu doxin ci leneen amuñu defin ci leneen loolu mu bëgg moom ci ànd ak moom ba lim bëgg ba lim bëgg yëpp am réussite ñu boo ko ñu doo ko jàll ci leneen maa ngi gërëm waa G IGFM e, yëpp maa ngi leen di gërëm di leen doxee di leen ñaanal jàmm